taqaddasa subhanahu wa taala fi jalalihi amma la yaliqu li kamalihi wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almawjudat sayidina wa habibina wa maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayuha almushahiduna alkiram ayuha alikhwa fillah inna adba alhadithi kitab allahi azza wa jal wa xayru alhuda hadi nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi gannaaw ba nu leen nuyoo ziyaara leen ñi ngi sant yàlla subhaanahu wa taala sant gu amul àpp ndax kàttanal gi munu kàttanal ñu mën dajawaat ak yéen ci seen waxtu wi di seen émission bi di al azkar ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit Cheikh El Hadj waaye mbokk yi ñu ngi julli ci sangu-sang yépp di sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam moom yonent bi nga xam ni mooy xaatimi nabiin waaye mooy imaami mursalin moom mooy njiitu ñi ñu yónni ñëpp waaye tam moo tëj lépp moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ñuy julli ci moom ndax yëg ni julli ci moom ah amul dara lu mel noonu ci àddina ak ci àllaaxira loolu ñëpp xam nanu ko ndax buñ ko sunu maam aadama alayhi salaatu wassalaam eh, keroog ba waxee ni tooñ na borom bi subhaanahu wa taala ci tere gu mu ko tere gis ngeen ba mu bëggee yàlla jéggal ko ci benn mbir rek la def te mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom tamit la yàlla wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa tasliman kon mbokk yi yeneen ci boobu ñi ngi feeñal sunu julli ci moom bu rëy rëy rëy sallallahu ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, mbokk yi gannaaw bala ñoo dugg ci sunu tem sunu waxtaan tey dina am njëriñ ndax am nañ ci yaakaar ñi ko laaj dañu bari yàlla xam na ko ci biir réew mi ak ci biti réew daan ci waxtaan suñu nuyoo muy muy muy sarax sarax nu ko islaam gise ak nu ko baatin gise ak ban sarax mooy faj aajo nit ak ban sarax mooy tappale ak ban sarax mooy bi nga xam ni mooy bi am njëriñ ku ne xam na ni suñ tuddee sarax seen li ngeen tànnal seen bopp muy seen rubrique tabiayaat boobu da ngay yëg ni day dugg ndax kenn ku nekk ak foo nekk di ma seetaan tey mën nga xam ban sarax moo baax ci yow mbokk yi nag ma di leen invité ngeen participer ndax kii toog di wax li mu nas pour wax ko ak yow lépp xelam du ko tënkandoo ndax yéeney xolam du xaj ci làmmiñam moo tax léeg-léeg yow miy seetaan ba yàgg nga dugg ni ko pàcc sàngam nag ni ko wala tàmbali woon nga nangam wala nangam parce que nit ñi dañu koy def ci sama téléphone su émission bi jeexee te loolu ci ci ci ci ci direct bi la gën a amee njëriñ waaw kon ñu nuyu ziyaara kilifa réew mi kilifa réew mi yëpp kilifa diine ji ak aada ji ci ñu jëkkee ci sëriñ Babacar si Cheikh El Hadj Mansour ak euh, sëriñ Pape Malick si ak sëriñ Maodo si ak sama sëriñ sëñ Babacar si Abdoul Aziz di ko ziyaar di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla wér waaye itam sëriñ Muntaka Touba ñu ngi koy ziyaara di ko ndokkeel ci Masaalikul Jinaan bu baax liggéey bi rëy na rafet na yàlla na euh, euh, euh, sut mag ña aw fan waaye itam sëñ Bass Abdou Khader soppee ñëpp soppee ñëpp yàlla na yàlla gën ko dëgëral ak waa Touba yëpp waaye Cheikh Serigne Cheikh Tidiane Niass ca Kaolack Medina Baye ak Léona ñëpp ñu ngi leen di ziyaara waaye itam fépp fu kilifa diine nekk yéen a ma gën a xam waxtu ni mu mel waaye sunu sañoon tudd ñëpp kenn par kenn ci kër gu nekk ndax seen am njëriñ ci réew mi waaye seen am njëriñ ci diine ji waaye seen am njëriñ ci njaboot gi kon mbokk eh, tey ci sarax la dugg lan mooy sarax dinañ ko xam waaye itam sarax ban ak ban lan ci eh, eh, gën a bëgg nit ki def ko wala sax ki feebar ban sarax mooy bi koy dimbali mu jóg waaye itam ki am problème umu ban sarax moo koy dimbali mu jóg mu mu nekkaat ci mbiram ak mbooloom formule sarax yi dina génn ak mbooloom yi ñuy tudd ci sarax yi ci jaadu ak yi ci jaaduwul inchaa allahu tey seen émission al azkar dinañ ci ànd ak yéen kon balaa ñuy dem nin ko baaxoo di defee 88 628 99 80 mooy buum gi nga xam ni kenn ku ci tàppe rek dana janoog man su ko defee mu laaj ma li mu bëgg a xam ma tontu ko ca ku ci tabee am réer tam mu profité fii parce que ñaar su dëppoo rek nit ki lu ko neex mën na def fu ko neex mën na dem muy xam tabi am waaye tabi am ban sarax la ko recommandé loolu su amee ah nit ki dafay daal di jàll ci ci ci ci xéewal yu kawe kawe kawe kawe mbokk yi sarax parce que alquran yàlla subhaanahu wa taala moo ko indi ngir mu nekk sunu tors mu nekk sunu tors balaa may ñëw ci euh, sarax ak ya ca biir mën naa junju ni alquran ci boppam mu tudd sarax gis nga yàlla même azaka ak zakatul fitre ak yooyu yëpp ci ay formule ci sarax la bokk gis nga yàlla fu mu waxee euh, euh, euh, yuqimu salaa teg na te wu yu'ti zaka parce que képp ku jàng ci alquran fu yàlla tuddee pionnier bu mag bu rëy bu am doole bi muy julli teg na ca azaka te yàlla moomu tam moo wax ni innama sadaqaatu lil fuqara wal masakin ba aaya ba jeex wa xaamilina alayha wal al qulub wa fi riqaab sa ba aaya ba jeex dangay gis ni que kon sarax bunt bu rëy la am ci dundu nit foofu nag naanu fa leeral tuuti ndax tam ñun dañuy dund léeg-léeg ci concurrence boo xam ni daf ñuy jële ci honnêteté intellectuelle dina tàbbal ci parparloo ak gisin yoo xam ni amul njëriñ amul solo amul benn cëslaay societé bi ñuy dund lan laa bëgg a wax mooy tey kenn ku ne war na d'accord ni xam nga bu nit sañee taxaw ni sarax yalwaan jaaduwul yalwaan dafa jaadu parce que yàlla moo tudd ki niy jox sarax kan la tudd ñaar nag fuqara ak miskin fuqara dafay nekk koo xam ni euh, dafay nekk ci këram nekk benn mam aas nga xam ne amul dépense weer nga am alal ju bari léeg-léeg nga fëgg ko jox ko dara kooku fuqaraa la waaye miskin mooy ki nga xam ne dem na ba dépense bi mu war a dépense tey amu ko mbokk mi kooku dafa jaadu nga dimbali ko jaadu ma dimbali ko jaadu ñëpp dimbali ko nun koy dimbalee nag mooy moo xam ci feu rouge bi la ne moo xam potom la yor di yalwaan moo xam dafa lal ci angle bi moo xam ci jàkka ji fu mu mën a nekk man ma jug ma jug dem fekki ko jox ko lan moo may yëkkati nag man yëg-yëg la mu yëg ni de man am naa tey ñaari junni dépense junni ba paas ci téeméer ba ak fu ma mën a jëm def lépp yëg ni dese naa trois mille ma romb ki ci feu bi mu yor yatam wala mu lal sax ci suuf naan dimbali leen ma lu ma añee allahu akbar te man ma yëg ni aj naa ba sama njaboot a ngi añ ah ma daldi di rocc ñatt ngëbal ko ni ko soo demee añal mbokk mi loolu lu jaadu la kon boobu sarax la ci way fuqara bi laaj waaw ah, xëy na muy laaj sax wal agniya ki nga xam ni omal na omal nag foofu duma ko tekkee ki am ba desal déedéet waaye ki am rek lu mu yëg ni mën na ci def soxlay bisam mu des gis na ku soxlay bisam matut na ca comp jox ko na ca comp jox ko loolu nag gis nga dafa dem ba toxu lan moo tax mu toxu mooy tey kenn ku ne li muy saraxe yàlla taxut yàlla taxut te sarax yàlla moo war a njëkk a tax mooy bi ci jiitu ak lu la mën a gaar dinaa ci ñëw ba ci yow mi may seetaan poroblème bi ngay dund ci saa si moo xam feebar ak lu mu doon dinaa la wax ni lii soo ko defee rek mu saafaraw te soo koy def nag muy saafaraw benn nit woo na ma bërki démb ñu koy sante yàlla ni ma daal wax dëgg yàlla yi nga digle yi ma ci def yëpp bu ci ne teg naa ci bët ma ni ko kon ñu sante ko yàlla parce que li nu bëgg rek mooy lépp lu mu doon mu ruqe lu mu ruqe ruqe ñu indi teg ci penc mi kiy seetaan Futurs Médias TFM religion moom daal di ci yëg boppam waaw kon boobu sarax nga xam ne mooy bi nu miin ñun nga xam ne bu nee sarax rek sa xel ci ki ñàkk lay dem waaye tam farata nga dem jox ko waaye loolu tam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu baree baree baree bare mbokk yi alquran tam wax ci waaw waaye xoolal as euh, ngëneel yi nga xam ni ki jóg yor junni dépensoo trois mille yi mu des deux mille mu yëg ni paas na ci dem mu des mille cinq cent mu daal di romb ku ay bëtam sëgg walla sax cëram manqué walla sax moom yooyu yëpp dalu ko waaye yor nañu ñu mënta dundal mu ni dafa bëgg lu mu dem añe kooko rocc ñatt téeméer jox ko ko mbokk yi ngëneel yi tabbi ci loola dinaa la ci limal léegi rekk loo xam ni sunna la kenn mënu ko dàq mu ne alsadaqa tajaalu almalaika tadcu bi xalfa ala almutasaddiqin allahuma aati munfiqan xalafan allahu akbar xoolal yow nga def loolu fekk lu tuuti nga am mu ni malaaka yi xalafan gis nga ko léegi da ngay gis ah bismillah ba mën ne am na ko def salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ah, kay na ngeen def waay. waaw ñu ngi sant yàlla sang bi. mën nga wàññi sa télé rek wax ak man ci téléphone bi. ah waaw tabaraka na ngeen def ak coono. waaw bisimilah yokkal ma ko tuuti rek. tuuti mbaa yéen a ci jàmm. waa ñi ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi. noo tudd ak fooy wootee. Matar Diop laa tudd. ah jóob Diop aywa sëñ bi Diop. waaw. waaw loo bëgg. waaw sama tabian laa bëgg a xam. ah Makhtar Diop. waaw waaw ndox la. ah ndox la. waaw Makhtar ndox la. moom loolu nag euh, dina ko lim léegi. Mhm. incha fan ngay woote maa ngi wootee Tambacounda. Tambacounda naka waa Tamba mbaa bi mi ngi leer foofu. Mm, waaw leer na nañ ñi kay. incha ki nekk ndox ak ki nekk suuf ak ki nekk safara ak yëpp. bu ma mm. toppee rek incha allah dina ko xam léegi. am nga soxna ah waaw ah am nga soxna nu mu tudd eh, Mbayang Diop ah Mbayang waaw mbaxtaa Mbayang safara la de ah, <laughs> mbaadu <laughs> waaye incha allah ci am solution ci kàttanu yàlla est-ce nit dina nekk ndox nit nekk safara ci uh-huh. ci ci xam-xam ñu dem ba uh-huh. dootuñu lorante xéewal judd uh-huh. waaw te loolu mooy mooy mooy farata ji waaw kon ziyaaral nu na dina ko dégg incha allah incha rabbi taala nuyu ñu tam waa Tamba yëpp nañ ko dégg incha allah rabbi incha allahu rabbi taala jërëjëf jërëjëf Hadj Makhtar e, kon ni Makhtar Teef ku ko def incha allahu léegi rek di nga xam sa tabia xam tam sa sarax bi nga xam ni jaadu na soo ko defee sa lépp dox waaye mbokk mi maa ngi tolloon ci e, malaaka yi di ñaanal kooku di ñaanal aji sarxe ji c'est que damay commencer ci kaw rek ci comme am nañ temps pour développer loolu lépp su ko defee nag loolu mbokk bi tey yaa ngi jóg rek defe ni mam as dafa baax defe ni dafa yiw nga tënku ko ci njort nga ñëw ci moom ni ko ñaanal ma yàlla waa mbokk mi kon ki yàlla ni dafa set baax hum hum ñoom malaaka yi ibadun mukramun jaam yu tedd lan laa yaasuuna allaha maa amar wa yafaaluuna maa yumar yow da ngaa jàpp ni sëriñ mam as mbay ku baax la su ma ñaanalee mu nangu waa ki la yàlla joxoñ nag ni la bu ñaanee mu nangu ndax ku sell la ku jub la prévoir un sax ci moom safaan kon kooku lépp lun la day tax day tax soo ko defee moom mu ñaanal la loolu war nga ci góor góorgóorlu kon yow mi am soo génnee sarax malaaka yi ñooy jug di la ñaanal di la ñaanal di wax yàlla li mu joxe yàlla na ko ko wuutalal tey joxe nga téeméer benn balaa bi damaa bëggoon a xam lan mooy sarax bi asalaamaaleykum soxna si bismillah fooy wootee Kaolack kawla noo tudd. man ni noo tudd. maaleykum salaam. da wàññi télé bi nga waxee ak man. sa téléphone Kaolack Kaolack. waaw da ngay wàññi télé bi nga waxee ak man sa téléphone. Dieynaba. Dieynaba. allo soxna Dieynaba. allo. waaw dafa mel ni ba rëcc na mais ba moom suuf la ba suuf la. moom ak maxtaar bi génn léegi nan suivre daan leen wax seen seen seen sarax comme tey moom képp ku dugg rek incha allahu di nga am gindiku gu wér ci sa mbir ak sa doxalinu àddina ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kon 88 628 99 80 ma fàttali itam ñi nekk ci diaspora bi double zéro mooy 00 221 33 841 23 23 sama mbokk gàmb yi ñoom dañuy wax naa leen ko wax mooy euh, zéro mooy zéro zéro ñaar euh, euh, ñaar ñeent fukk ah loolu loolu mbaa dana dem xam naa zéro zéro daal deux cent vingt et un ah ah two two one tiri tiri huit cent huit cent quarante un tey à 8 841 841 841 two three two three yéen sama mbokk gambien yi léeg-léeg ñu ni ma imaam ni ngay waxe kii bi français bi duñu ko xam denu ko jox ci wolof bi waaw waaye dégg léegi nag malaaka yooyu dañ lay ñaanal li nga joxe mu wuutu moo tax sarax képp ku ko def bu tegoo ci yoon rek doo ko laam-laame alquran moo wax ni lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuxibuun wa ma tunfiqu min cheyin nag fa inna allaha bihi alim e, du ngeen am mbaax wala jekk maanaam revenu bi du yegg si lu may da ngeen joxe li ngeen gën a bëgg xam nga tam e, yow yaa ngi yor cent mille francs sa poche nit ñëw ni la yàlla ngir yàlla nga ne aw ma weccit allahu akbar te cent mille yooyu joxoo ko sa bopp yàlla moo la ko jox yabal nit nag pour nga compal ko ci yow nga lànk waa léegi su cent mille yi jeexee nga bëgg mu delsi sunu boroom nag moom it lànk su fekkee cent mille yooyu miskin bi ñëw na ni la dimbali ma ci nga jël dix mille francs lem boxam jox ko mbokk yi loolu lu am solo la man damaa toog benn bis sama kër ma am problème mu facture boo xam ne dem na cent et quelques mille courant léegi ma toog taman li ma yor quatre-vingt et quelques mille la te war naa ko fay nis tuuti rek benn nit nuyoo bi mu nuyoo ñëw ma recevoir ko defe ni sax day indi lu mottali facture bi mu ni ma imam maa ngi lay ziar ñu waxtaan ba pay mu génne facture am ni ma dama am facture euh, mu nekk ci euh, maanaam ay huit mille et moom facture am matul dix mille ma déglu ko ba mu àggal mu ni ma ma bëggoon nga dimbali ma ma fay ko ndax su ma ko fayul tey mooy dernier délai bi dañ koy couper ma daal di dindi man ci sama quatre-vingt et quelques mille matut comme man cent et quelques mille laay fay am naa quatre-vingt et quelques mille ma rocc dix mille ngëpp ko jox ko mu dem fay bosom fi ma toog génn di naan café nit jox ma trois cent euros soo ko xay non cinq cent euros cinq cent euros nit jox ma ko soo ko xay xaymaa mi ngi toll ci trois cent et quelques mille ah trois cent vingt cinq mille trois cent et quelques ma jàngee ci ni gis nga kooku su ma ko joxoon ñaar téeméer wala junni ub boppam lee du yegg si waaye la fait que man ma xalaat ni kii moom man mën naa faj soxlaam naa faj soxlaam yàlla mi ma tiim faj sama soxla te loolu yonent bi moo ko wax muy képp ku la tawat koo doon li mu la tawat su nekkee sa poos jox ko ko waaw waaye ñun sénégalais dan nit day ñëw ni la damaa am ordonnance juróomi téeméer nga daal di dindi téeméer jox ko fu ko defee upp nga boppam du xam day lekk téeméer bi du xam day jënd mi boo fajee ajoom yàlla sunu boroom faj aajoom loolu la yonent bi wax ni képp koo xam ni am na njàqare ci àddina nga teg jël ko ko ëllëg yowmal xiyaam te fii ngay njëkk a jot bisimilah. salaamaaleykum laa tëdd. allo. bisimilah waaw. allo bisimilah soxna si. Ousseynou Fall laa tëdd. Ousseynou Fall. waaw Ousseynou Fall waaw. Ousseynou Ousseynou. Ousseynou Ousseynou mooy Ousseynou Ousseynou moo am. waaw mooy Ousseynou waaw mooy ñiy wax awa rek xawaa lan tudd. ah. <laughs> ma mooy kuy wax xawaa. awa awa amul xawaa moo am. awa déedéet Ousseynou la. waaw Ousseynou Fall. waaw. waaw moom xam nga safara la. Ousseynou waaw dama bëggoon xam sama ta sama kii. ak yow safara nga. waaw bëggoon naa xam sama kii ak sama sarax. dinaa la ko wax léegi yow Ousseynou ak Makhtar ak Jaynaba bi génn léegi. incha allahu ñetti ñooñu. seen tur yaa ngi nii ci kàttanu yàlla ñoom buñ suivre rek damay résumer pour wàcc rek su ko defee ma wax leen ko ak keneen ku dugg nga bokk ci note bi incha allah su ko defee ci kàttanu yàlla soo ko defee moom di nga woote waat nii ni ma ah ni ma tàggantikoo dund naa ba toll nii mu musuma tàggantikoo noonu te loolu moom tey dañ leen koy defal ndax wax dëgg yàlla boobu ba tey bu émission bi dooree seen soxla yépp mooy woote xam fi ngeen bokk wax leen parce que gis nga mbokk mi yàlla moo bàyyiwul dara ci alquran maa faratna fi kitab min shay'in te léegi léeg boo gisee yenn yi du am résultat mooy da ngay dégg ku naan la man ci alquran laay ñaan nàngam te boo ko laajoon boo ko laajoon alquran yi ci gën a nécessaire pour que nga mën ci ñaan xamu ko xamu ko boo ko laajoon yooyu nag day tax boo jaaree ci moom jaar ci ku mel ni moom dangay ngay defee ni alquran du résoudre problème yi fekk déedéet képp ku la ni ci alquran laay ñaan su ko tegee ci yoon <coughs> bu ci ñaanee aajo ba faju parce que li tax man la yi gën a simple xamu ko koo ci laaj am na benn nit tunkara maa ngi koy ziar maa ngi ko dégg waa ji ni day ñaan ci alquran mu ni ko alquran ñaata ñaata <coughs> ñaata saar la xamu ko ñaata saar la xamu ko loolu nga xam ni xale yi ci daara ji génnagul koo ni alquran ñaata saar la mu ne la cent quatorze ah, ñaata xaaj ñaata xaaj lañ koy faral di xaaj trente ah adad <coughs> maanaam xizib yi ñaata la soixante alquran ah a ah, su ko defee saar yi nekk cent quatorze aaya yi nekk six mille deux cent trente six ah baat yi nekk soixante dix sept mille quatre cent trente sept ah xaraf yi nekk euh, trois cent vingt trois mille six cent soixante onze loolu danga ko war a xam parce que lu ci nekk am na lu mu méngool ci ci doomu aadama lu ci nekk am na lu mu méngool ci bu nit ki tollee ci benn circonstance pour bëgg ko génn loolu farata la waaye beneen bi ci topp muy bu ama ama ama ama am solo waaw muy léeg-léeg nga dégg nit ñu naan la dafay sarxe nangam nit dani ma nangam ma sarxe nangam ma sarxe mbokk yi amul lundul sarxe pour génn ci musiba yàlla yi mu tudd ci alquran yépp dinaa la ko résumer incha allah muy mbooloom luy dund am na boo tolloo ci benn jamono nga def ko sarxe ko pour jàll ci circonstance boobu moo tax keroog bi waaja ne mbooloom sëriñ bu la laaj xar da koy tojaat def ci firigoom di ko lekk ma ni ko waxul dëgg waxul dëgg parce que am na ñoo xam ne seen tolluwaay romb na sax ñu ne fa di di di di di noos ci ay xari jàmbur parce que am na njëgu xar benn nit ma wax ci mu ni ma nooy layalee ku dem jël euh, bakkan rey ko pour ni day sauver bakkan ma ni ko loolu yàllaa ko njëkk a def yàlla moo dem jël xar ñëw rey ko jotee ko bakkanu maam Ismaayla doomu maam sëtu maam doomu maam Ibrahim ci fan ma ni ko demal ci sóoratu baqara watlu alayhim naba abnay aadam istaqarraba qurbanan fa tuqubila min ahadihima wa lam yataqaba qaala la aqtulannak ba aaya ba jeex ci diggante haabil ak qaabil foofa la xar ma jóge mu ni ma léegi cosaan ci nit jël xar rey ko fu mu jógee ma ni ko déglul ma ne ko gis nga ñi yàlla njëkk bind muy euh, mam aadam ak Hawa dan daan am ay seex nu amee ay seex seex bu ne day jël inversé moroomam seex bu ne day jël seexu moroomam ca Haabil ak Qaabil nag ban jotee histoire bu gudd la keroog ba ñuy waat maanaam ba kenn ba ba ban leen di atte xam nga dañu ñëw bu jëkk bu nit amee nit problème booba nit ñi ragal nan yàlla moo tax yàlla mbooloom yonent bu fi jaar ragal yàlla la lay dénk parce que su ragal yàlla amee nit ki day wax dëgg mba su waxul dëgg soo ko nee kaay waat mu bàyyi moo tax yàlla ba muy wax ci alquran wa id qaala lahum nuux an laa tattaquun ragal yàlla rek laa dénk waa nuux wa id qaala lahum axuuhum huud an laa tattaquun id qaala lahum euh, euh, axuuhum saalix ألا تتقون وإذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون وإذ قال لهم شعيب ألا تتقون ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla xeet wu ne bu ne ragal yàlla la leen di dénk parce que suñ ragalee yàlla kenn ku ne li muy def dina ko dina ci seet yàlla waaw léegi nag ba ñoom ñaar ñu ñëwee ñu jote kii ni du jël sa seex daa ñaaw kii ni nangam ñu di leen atte lan lan leen wax ku ne li ngay liggéey demal indi ci comme kii baykat la mu indi am sàq teg comme kii sàmmkat la mu indi am sàq teg ñoom ñaar booba bu jëkk ku bu yàlla nangu moom la ñuy wax yàlla nangul na la innama yataqabbalu llah min almuttaqin yàlla ki gën ragal ki am dëgg moom lay nangul yàlla jël xarma nangul kenn ca ñoom ba mu ko jëlee mu ni nan yóbbu xar mi aljanna denc ko fa booba nag fekk na nammeelu sunu boroom jiitu na ca xar moomu keroog ba maam Ibrahim bëggee rey Ismaayil ajjana amul xar waaye yàllaa ko fa yóbbu moom lañ jëli ñëw jote ko bakkanu yonent malaaj la yow mi may seetaan ak yow miy déglu est-ce que bakkanu yonent suñ ko jotee am gàtt est-ce que bakkanu doomu aadama simple mat naa wax kon rafet njort ak di waxee xam-xam dafa am njëriñ dafa am solo parce que kenn ku nekk ci nit ñi mënoo wax ba du defee tolluwaayam ki tiryande kooku xam nga tey su fekkee nit dafa ñëw daal ni ma mankat kat damaa dem nit danoo jàpp diw da doon yàq biir ñu baal ma ci kàddu gi da doon yàq biir waa léegi ndax da nga naan kon ndekete daal médecine amul ndekete daal ñiy wax dañuy faj ñépp ay yàqkati biir lañ déedéet da nga naan kooka amul xam-xam te bokkul ci médecins yi sax dañuy daal di génn daal di koy weddil seen bopp kon nañuy teg yëf yi ci xam-xam suñ ko deful lépp day réer su lépp réeree ñun ñëpp ay perte kenn du bénéficier kon nit dina am problème moo xam dañ ko tëj kaso moo xam dafa feebar moo xam dafa euh, am problème wala nangam mu dem ci ku xam dara mu seetal ko loola ni ko génne ci sarax sàngam ñaan ci boromam loola faju ci saasi ci saasi waaw loolu moom defe naa ni amul sax ma dem te ñëw waa daara ji xam nan ko léegi nag ñi ngi nekkoon ci loolu kon képp ku jël gàtt rey ko saam ko mais nag lin lay wax mooy qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin bismillah yow mi ànd ak ñun ci téléphone bi bismillah salaamaaleykum maa ngi lay dégg allo waaw bismillah sëñ bi allo allo waaw bismillah ñu ngi lay dégg waaw noo tudd ak fooy wootee daaru muxti daaru muxti ñu ngi lay ziyaar bu baax sang bi tur bi nan la xaadim ah xaadim yow moom vraiment xaadim waaw waaw xaadim waaw waaw wala xadi xaadim xaadim xool da ngay wàññi sa télé bi nga waxeeg téléphone bismillah sëñ bi noo bismillah allo. bisimilah sëñ bi ma ni noo tudd ñu ngi lay dégg. ma ne Xadir. ah Xadir. Xadir. Hmm. Xadim Xadim. ah Xadim. waaw. Xadim. waaw. waa Xadim mooy Xadimu Rasul. Xadimu Rasul. waaw kañ. Xadim loo bëgg a xam. waaw dama laaj ba xam Xadim moom lan la. Xadim ndox la. ndox la. waaw Xadim moom ndox la. xaadi moom ndox laa kon maa ngi xaar nga wax xaadi moom lu eykee moom incha allahu boo nu toppee rek su ma résumé nii rek dinaa ñëw ci sarax yeeg kenn ku ci nekk nu mu ci positionné wu incha allah waaw ñi ngi lay ziar nu télé bi def foofu waaw leer na lool kay ñoo ngi leen di ziar rek di leen ñaanal rek amin nun war a yokk mbaa ñu war ko bàyyi ci émission bi non émission yi moom neex na ma man dama ko seetaan toujours tey laa ma sa woote nag mais moom dëgg la sëñ Xaadim neex na loolu yal na yàlla defal jàmm xewal. amiin ñu mbokk ko sañ Xaadim. Ndiaye Seydou sama béykat yi alay xel salawaati jërëgën jëf. amiin jërëjëf jërëjëf sëñ Xaadim moomu di woote foofu euh, ñi ngi koy ziyaara waaye mbokk mi pour wax la euh, su ko defee nag xar mi ngay jënd pour ray ko nee nan la jëndal sarax wala yow sax nee nga ki ki ki ñëw foog ñu ray xar yow boo jëndee xar mi ba noppi nag. nanga nga am tawxiid goo ko rayee mooy qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin laa sharika la wa bi dalika umirtu wa ana min al nga gëm ni ah da def sabab te fekk nag nala la ca xam yabal mbokk yi am na koo xam ne day dégg rek parce que ci làmb ji nga koy gëmee léeg-léeg da ngay gis sëriñ si sax dañuy toppandoonte da gis kii tey ñu ni ko na indi perkaal lal ko waa ji dox ci beneen bër bu demee ci keneen mun ko jëlal perkaal keneen fekk ka ku njëkk a wax am maa def ci am xam-xam xam-xam tegtal bu leer ni lii ak lii ak lii mooy tegtal yi pour nga def ko keneen ki nag toppandoo moo tax nit su toppandoo sarax dinaa ci ñëw même boo jëndoon ñaar fukki giléem rey ko te fekk waruloo tuur deret sa aajo day gën a dëgër boo jëndoon ñaar fukki giléem romb naa nag de ak xar ñaar fukki giléem bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam cheikh bi na def maa ngi def noo tudd Abdoul Diallo Abdou ah Abdoul Abdoul Abdoul Diallo waaw Abdoul wàññil télé bi tuuti waaw maa ngi koy wàññi Abdoul Diallo. Ah? waaw. waaw baax na Abdou fooy woote maa ngi wootee Jolof. ah Jolof. waaw. ah bari naa fay soppe de. ah. waaw. waaw ndax <coughs> am naa fa ay xarit de. waaw. Ah, ñu ngi lay naka waa Jolof maa ñu ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm alhamdulilah sant yàlla. waaw loo bëgg a xam. ah Abdoulaye Kool Abdoul. waa Abdou moom ndox la. ah. waa Abdul ndox la. waaw waaw léegi nag bu dee sarax bi baax ci moom. loolu boo nu toppee uh-huh. ci kanam rek di nga ko xam. Uh-huh. waaw yow ak xaadim ak Jaynaba ak Maxtaar ak ñoom ñëpp incha allah dinañ ko xam dégg waaw waaw waaw incha baax na jërëjëf sëñ Abdou. waaw kay jërëjëf aywa kon ñi ngi nuyu sama mbokki jëlëf jëlëf yëpp. waaw ñu ngi leen di ziyaara bokk na ci ah Moustapha Ndiaye ci Tiwaawan nekkoon sunu sëriñu daara moom tam ñu ngi koy ziyaar Ahmed si ak waa daara ji yëpp Mor Daba si ah ak Cheikh Daba Rakam ak Mansour si ñoo ñëpp ay jolof-jolof lan ñoo nekkoon ci daara sëriñ Babacar si Abdoul Aziz ñu ngi leen di ziyaara bu wér wér wér wér ak waa daara ji yëpp nag waaw bu dee ñoom Pape Ndaw Ousmane Ndaw ñooñu ay saalum saalum lan ñoom waaw ay Soulayba ba ah, <laughs> ak ak ak ay Aline Diagne ñooñu ñu ngi leen di ziyaara ñoom tam aywa léegi maa ngi tolloon ci euh, li tax nit ci war a xam li mu war a lan la mbokk yi 88 628 99 80 ku ci dugg incha allah rek yéen ñi nga xam ne nag yéen a nekkee ci bitim réew euh, double zéro 221 33 841 23 23 su ko defee incha allah ku dugg rek ñu ànd ak moom waaw su ko defee loolu sarax bi nit ki da koy xam su ñëwee nag ba teg ko mu rendi ko jaamoo ko yàlla saam yàpp wi sarxe ko su ko sarxee ah bu boobaa lépp lum ca aj aajoom faju salaamaaleykum 88 628 asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa Babacar Fall lay laajte. ah Cheikh Babacar ah. Babacar Fall. waaw waaw Babacar. Babacar ah, Fall ah Babacar moom lay laajte Babacar Fall. waaw waaw ah, waaw dama ko bëgg a bind. waa Babacar yow euh, Babacar ndox la dégg allo daa mel ni Babacar rëcc na Babacar moom def waa 88 628. 99 80 incha allah ku ñëw ci buum gi rek mu jokkoo gi ñu daal di koy jël kon mbokk yi loolu lu ama ama am solo la ci def ko moo tax sarax képp yonent bi sallallahu alayhi moo ni dafay jot nit sawara xam nga loo xam ni yow dangaa ngaa war a dem safara sarax jug taxaw sa diggante ak safara mbokk yi kon loolu ndawut waaye itam nee na fi u ghadaba bi xoolal ku yàlla xool ba mere ko merum yàlla ni mu kawee yàlla jéppi ko mu sarxe sunu borom bëggaat ko xam nga lu tax parce que yàlla dafa tabe dafa bëgg nit ñi tabe te yàlla moo moom ñëpp dafa bëgg ñu dimbaleent ma misaal la ko tey jii rek ñun ñii nekk ci kër nga yor say njaboot ñu toog nga am ci koo xam ne di nga ni ko dinaa la duma waaye mu jot luñ ko jox moo xam añam wala nangam mu ñëw fekk rakkam yi toog nga toog mu ni mu ni Samba kaay Moussa kaay Ayda kaay Faatu ñu ñëw mu teg daan ne nan leen bokk añ ñu ni ko añoon nan mu ni wéttali leen ma rekk yéen ñoo bokk ndey ak baay su ngeen ma wéttalee ma am appétit allahu akbar kooku way jur wi toog di ko dégg te fekk yëg na ni xam na ni gune gu dégg ko jikkooy boppam la way jur woowu daf koy daldi di accepter bu ko mere woon sax dafay giif moo tax sarax yàlla mi nga xam ni moo bind nit ñi sarax yàlla digal nu ko kenn ku ko def te fekk yàlla tax yàlla sun borom dafay jubbanti say mbir kon dafay dindi sañu borom bi meram ci sa kaw waaye mbokk yi sarax mooy tax ñaan nangu moo tax ñaankat yu mag yépp ci sarax lañuy miine mooy seen support ci lañuy taxaw dëssandiku pour jóg waaw pionnier boobu la sarax di def ci nit waaw moo tax kon ki ko xamul wala ki ko def ba pare amul satisfaction kooku kenn amul sikk ni dafa làmbatu dafa làmbatu waaw léeg-léeg nag ma ñëw ci détails yi mooy léeg-léeg nit ni la man de dama dem ci di mu sax xeloo ma man rey naa xar wala nangam mbokk yi ma jëkkee foofu rek comme fa laa doore woon léeg nga ñëw ci nit mu ni la demal génn xar sarax nga ñëw ci maam as mu wax la ko nga dem ci euh, yaxya mu ni la waat génneel sarax nga ni kii génnewul woon am na lu koy waral mooy lan mooy sarax ak tudd ak tabaski ñoo yem day mat pour dimbali la gis nga tey bunt bi bunt bi su fekkoon daf ni ŋàpp ma ni laa ah, sëñ bi yow de pour ma aar la ci musiba yee di daw di ñëw foog ñu wut bunt nga ni ma waaw daal di dem wut ab fenêtre soo ñëwee man amatuma droit di la insister pour nga dem jënd bunt parce que yow mi nga xam ni yaa bëgg a mucc sagam fenêtre moo la ñor man dama la ko naan ŋàpp monteel parce que loolu mooy euh, mooy mooy mooy personnalité léegi nag suñ ko monté nga jékki-jékki rek yaa ñëwaat nga jóge fa dem ci ñu fekk la fa làpp wala nga am problème yaa ñëw ñu la waa sa nga ni ko damaa bëgg nga dimbali ma ndax bis bu ne sàcc dugg fii yayaa xool gis ni yow fenêtre mun la soxna si wala sëñ bi fii buntu nga fiy def nga ni ko pour pourtant day maam aas waxoon na ma ma wut bunt moom yayaa moo la war a leeral ni la yow la nga wutoon bu dee am na xam-xam laa wax parce que xam-xam soo détaché lépp day feeñ ni la déet li nga wutoon lii nga def fii kat du fenêtre du du buntu fenêtre la su ko defee nga wut bunt jàmm ni ñooy kon dama bëgg a leeral ni képp kuy sarxe moo xam dangaa yóbbu wala yaa téye na nga am xolu jox yàlla li nga ko yéene lan laa waxoon sànq lan tanaalu lbirra xatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min cheyin fa inna allaha bihi alim boroom xam-xam yi wax nan ni bi aaya bi wàccee Seydina Omar dafa jël suukar su bari di ko joxe ndax mu ni daf ko bëgg xëy na bu wérutit jàngale la bu am solo mooy nit ku nekk li muy joxe na koy natt ci boppam dinaa ci ñëw léeg-léeg tam nit ñi la man daal sëñ bi dama dem fee ñu ni ma naa sarxe euh, giléem mbokk mi giléem dañ koy sarxe dañuy sarxe fas dañuy sarxe mbaam dañuy sarxe lépp lu nekk dañ koy sarxe lu yàlla tudd ci alquran rek am na ci formule boo xam buñ fa tollee am nañ droit sarxe ko waaye naka mooy ku la ni demal jënd fas ma rey ko ñu sarxe déedéet boobu jaaduwut déedéet ku leen jëndal mbaam ñu rey ko sarxe jaaduwut parce que kenn du ko lekk islam lépp lu ñuy rendi te duñ ko jëfandikoo dalay wax bu ko rendi waaw ah. bu dinaa ñëw nag ci fi ñu koy soxlaak buñ koy sarxeek nun koy defee waaw lépp loo xam ni nit sani al aadam la maanaam walla wala muy euh, manfaul aadam lu aad doomu aadam mën a jëfandikoo dees na ko sarxe mais ci ban côté ak ci naka yooyu léeg lee nit juum ci parce que léeg-léeg nit ni la man kat dan maa wax naa ñooy ah waaye yow loolu ja warul nu ko def nang déet teg ko ci xam-xam ku baax ah waxuma man dama koy digle wala dama koy def déedéet mais nag ay mbir ci xam-xam yu wér rot na ni léeg-léeg nit nekk ci xat-xat yoo xam ne la ko teg dañ ko jàpp par exemple nit def njuumte ñu sosal ko ca jàpp ko tëj ci kaso bi li def loo ko travaux forcés atte ko def loo ko travaux forcés ñu xool yëg ni ñu xool yëg ni ah kii kat lii ñu koy def loo defu ko parce que bu dee koo xam ne moom dafa rey nit walla nàngam intervention waru ci am dañ ko war punir waaye kii kat ndekete kii ñu ko jiiñ defu ko te moom àtte nañ ko tëj ko fukki ati travaux force mbokk mi am na sirru yu wér yoo xam ni boo ca saxee fas liggéey ko incha allahu mu génn ci xat-xat yooyu mu nekk waaw loolu lu wér la lu nangu la balaa may avancer foofu sax dafa am yu yàlla tudd ci alquran yépp yépp lu ci nekk rek am na fu muy jaadoo mu laaj ñu génne ko pour nit ku nekk ci xat-xat yàlla tudd na giléem gaynde jamal xanam qasuur ajalan maxaar qird zibu xinziir naaqa bair kalb sabaa xamir ibil bahima laaja maairs lanaam lanaam euh, saafinaat jiyaad ajal xanaazir xamar xayl da'ni wuxuus biraar baqar bu ci nekk rek am na foo xam ne yàlla daa toll foofu am lu mu utiliser ba tudd leen dinaa ci ñëw bu dee ci yeneen yi nga xam ne mooy yi naaw ak yooyu xasaraat ankabu ay ankabut namli zubaab baud firaash jiraat xamal dafaadi xayl shaaba xaya sobaat mubiin dabba ard duud xashaf ardat bu nekk am na foo xam ne ba yàllay tudd ba ko yàlla di tudd mag mu toll ni yàlla nag su tayee lu taw wax wala nangam ci ci man waxuma ci comme koo xam ne xëy na day wax rek pour bëgg bës wala muy waaraa pour pour bëgg ñu ni diw moo nangam mais man damay bëgg bu ñuy wax ñuy teg baaraam ñuy teg baaraam waaw lii ma lay wax soo demee ñi jàng baatin xam nañ ni fenn fu ci toll am na ci loo xam ni day dem gis nga même nit su nekkee ci ay problème yoo xam li ko teg lig ko teg par exemple comme nekk na ci benn société mu wér ko ni liggéeykat la mi ngi liggéey mi ngi def li mu war a def mais ñu ñëw épinglé ko ci ay tappale ak yooyu gis nga pit picc yi ñuy ñuy ñuy ñuy dinaaw picc yi nga xam ne dañ koy jaay pour wax la loo gis am na njariñ gis nga picc yooyu su ko jëndee am na lim bum ciy def benn bu ne mu bàyyi ko mu naaw inchaa allahu dina libre ca la muy def boobu nag bokkaatul ak sans ñu tëj ko ci kaso am na ci beneen pour sans ñu tëj ko ci kaso boobu nag bokkaatul ak wërsëgam tëju bu fekkee ki wërsëgam tëju moom bu jëlee picc mi da jël ñeen fukk ak benn mais day jàng wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما ذلك على الله بعزيز mu tifli ko ci laafu ndeyjoor bi bàyyi mu naaw su 41 yi jeexee kooku wërsëgam am na ñoo xam ni sëñ bi seen wërsëg yàlla moo leen koy joxal boppam amul intermédiaire loolu nag waxuma am parce que jugewul ci asamaan si waaye soo ko déggee mooy boo leen xeexee sax ci leen gën a ubbeeku soo teyee loo leen ameel joxoo leen ko ci leen gën a ubbeeku waaw te fekk du nu def dara lu juba mbaa luy tappale yooyu yëpp xeeti sarax la te pourtant picc moomu day naaw mais am na ci beneen boo xam ni nag beneen boo xam ni euh, am na ci yoo xam nag soo gisee léeg may def teg mooy dadul waxu télé parce que léeg nga tudd dara ab saay-saay wéeru ca lor nit da ngay am responsabilité te li ñuy wax it dañ koy wax rek pour bëgg lépp loo xam ne nit jàpp na ni munul nekk te fekk mën na nekk mu xam ni mën na nekk loolu lu wér la 88 628 99 80 bu fekkee am na ñuy dugg incha allah ci buumu jokkoo gi bu soobee yàlla parce que ñi ñuy jël seen note après dinan xam ñoom ku ci nekk fi mu toll ak li mu war a def bu soobee yàlla dégg nga wax léegi nag kon sarax lu islaam nangu la ñun nag yin ci miin tam nekk na tamooy mooy képp koo xam ni e, dafay jël lu lu lu lu muy lekk am nañ dinañ sarxe dugub comme ni ma limee mbooloom xayawaanaat yi wala mbooloom yi nga xam ni day naaw ay pitax dinañ ko sarxe ah, ak yeneen léegi nag dinan sax lekk moo xam na xeetu lekk yépp xeetu lekk yépp day dugg ci ni di ko sanxe dinañ sanxe tam li nit ki di dundee moo xam Europe euro dollar CFA ak yépp nit ki mën na ko jël mu sanxe ko waaw mais nag bu boobaa foofu li muy gën a dugg mooy ci wàllu azaka par exemple am nga alal at mi delsi na nga daal di jël alal jooju xayma ko la nga ca génne loolu formule sarax la xam nga lu tax parce que sarax boo dee génne azaka dafa yokk sa cofeel ci ñi nga xam ni ñoom nga dëkkal te amuñu mbokk mi am na koo xam ni yéena dëkk loxoom jotul ginnaawam nga di ko romb yi dem ak ñëw bu sa wërsëg dul dem ci moom day jur kañaan sa diggante ak moom parce que loolu tam nit la rek nit moom moo mel noonu waaw su fekkee dëkk ngeen te yow yaa ngi koy romb léeg-léeg nga sañse dugg sa oto romb ko affaire yooyu léeg-léeg fexeel bu ngeen dajee ci jàkka ji nga nuyuwaale ko moo xam bu fekkee du ko mën a tëb may parce que nit ñi tam léeg-léeg nga may nit rek mu jóge fa jàpp ni da nga ko xeeb waaye awale ko ci dara loolu waraloon mag ñi daan wax ndéwénal waaw wala suukaru koor waaw ah wala walla wala yu demee noonu am na formule yu bari yu am ci réew mi yoo xam ne xam nga tey dajeeg nit ci jàkka ji mu julli ba pare nga julli ngeen génn muy kii dàllam nga ni ko ah yow de sam waa ji gëj naa laa gis de ci loo ne mun la waay sëriñ bi maa ngi fi xam nga tar tari dëkk beeg nangam nga làmb sa poos dindi ñaari junn nuyu ko ni ko toggal war ga dinaa naan si de waaw daal di koy tooñ mu dem nga dem mag ñi bu njëkk daan nañ ko def tam ci ceeb guddi ñu dal di jël ceeb bu booba nag wanag dafa am dal di koy jëlli ci wanag wi waaw ñëw ba tolloog foofu rekk daal di la koy jël nga yeewu rek fekk ab saako ceeb ci kër gi am na ñoo xam ne tam dañuy yabal nit mu indi ceeb indi dawlin indi suukar daal ni laa ah, diw moo la ko jox te mbokk mi jamono bii ñu nekk amul ku ko soxlawul amul laa wax ku ko soxlawul kon ki am su fekkee dafa bëgg a saraxe te ajuwul ci dara noonu lay def bu dee nag yi ma limoon yooyu dafa aju léeg-léeg nit ñëw nekk ci xat-xat sàngam soxla sarax loolu nag loolu dafa am ñu muy seen matière dafa am ñu muy seen domaine bu boobaa ñoo ñoom ñoo koy def dafa mel ni ki ñëw ci médecin bi mu consulter ko ni ko yow dangaa feebar nangam bind ordonnance sarax léeg-léeg day nekk ordonnance boo xam ne nag moom du laaj xotti du laaj ñaw nga def ko li ngay def tegu ci ay texte yu wóor yu leer su ko defee nit ki daal di jóge foofu lijjantiku ba faw parce que am na koo xam ne ni mu ubboo tëjoo wér na ko ni du yoon déedéet am na koo xam ni tam wér na ko ni da daan dox di dox ba yàgg mu taxaw ah, xam nga sa mbir di dox ah yëpp di dox nga jékki-jékki rek affaire yi ni kacc affaire yi ni kàcc taxaw loolu lu yéeme la su ko defee nag nga daal di sarxe soo sarxee tam nga ñaan sa borom parce que bul defee ni tam mënoo ñaanal sa bopp ankañ léeg-léeg nit toll ci xat-xat sarxe ñaanal boppam loolu tam ki xam parce que bu njëkk soo gisee ñu ne wax parce que sarax boo ko tandatoo du am njëriñ du am njëriñ dina baax nag nga am yool parce que ku joxe alal di nga am yool waaye nag bu fekkee pour dekante benn mbir foog tam parce que caabi mën nga yor fukki caabi di caabi yëpp caabi lan waaye dañuy ubbi waaye yan seen liir yan seen ah yoon nga fukki caabi ay caabi lanu dañuy ubbi ay bunt waaye yan seen liir la ñuy ubbi sarax nag ki xam sarax bi mu war a def def ko dafa mel ni ki xam caabi ji war a ubbi wala caabi ji war a taal oto mu ñëw taal kon loolu farata bu rëy a rëy a rëy a rëy la dafa mel ni ñi nekk ci téléphone bi ñi ngi xëccu waaye dañuy déglu euh, instruction yi leen téléphone bi di jox ndax léegi léeg nga kii mu lay wax di la jox ay orientation waa bësal 2 wala nangam nangam yooyu def ci nekk farata kon vingt 88 628 99 vingt incha allahu ku ci ñëw rek ñu daal di koy jël euh, bu soobee yàlla waaw mu ni tam beneen bi ci des wax naa sànq ni sarax dafay dindi meru borom bi inna sadaqata la tutfi u ghadaba rabbi waaw meru borom bi ci aji sarax mu ni benn as sadaqa tamxul xataayaaka nit day nekk ci xat-xat saraxe sunu borom génne ko ci ku ne jàng na qissa waa asxaabul kahfi ba nu demee di dem ba xuntuma tëj leen ba nu jaaxlee kenn ku ne def na tawassul am na ca ku ne yàlla bi ma dajeeg diw day dimbali ko ci waxin su fekkee ba ma koy def sa jëmm rekk a tax yàlla nag ma dindi ci xat-xat yi ah, parce que léeg tamit nit di dimba euh, di def mbaax mba rek nekk ci benn xat waaye mu def tawassul nag ci sarax bi paase kon sarax nit dina ko def mu paase sax mu def ci tawassul kon kenn du ko perte loolu lu am solo la lu am njëriñ la lu mat a wax la lu am solo la lu am njëriñ la lu mat a wax la su ko defee nag nga gis xeer ba puus ak yeneen kon nag su sallallahu alayhi wa sallam waxee ni dina dindi nit ci ay xat-xat yu mu nekk wala mu yaatal ay xat-xat yu mu nekk maanaam génne ko ca beneen bi ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne as-sadaqa tudfi'u xati'a kama ya kama yudfi'u al-ma'a an-naar allahu akbar sarax ndekete dina fekk nit moo xam feebar la moo xam ñàkk la moo xam wéradi la moo xam bismillah salaamaaleykum salaamaaleykum bismillah da ngay wàññi télé bi rek ma dégg la. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa sëñ bi wàññil tuuti sa télé rek nga wax ak man téléphone. maaleykum salaam. waa ñu ngi lay ziar noo tudd ak fooy wootee. ah maa ngi woo gisee waagu ñaay. waagu ñaay maaleykum waa wàññil télé bi. ah ah ma wàññil. bi. waa ay woote Magu Ñaay. waaw wàññil télé bi nga waxeeg man téléphone bi. wàññi naa ko. waa bisimilah ana waa Waagu Ñaay. ñëpp ngi fi man na Badara Diop. Badara Diop Alioune Badara ah. Diop. waaw. waaw aywa bisimilah sëñ Badara. waaw naka waa kër gi. ñi ngi sant borom bi bu baax. li ngay wax day neex na am na solo de. ah jërëjëf Diop. ñu lay dégg waay yàlla yàlla defal jàmm. amin amin ñu bokk ko. may la wér ak wér xam-xam ngay wax de. jërëjëf Diop. dëgg kontaan nañ noo tudd. maam As Mbaye alaaji Malick alaaji Malick Mbaye waaw waaw mbay Mbaye jërëjëf Diop jërëjëf kontaan na jërëjëf Hadj Badara Alioune mooy lan <coughs> ah, Alioune ndox la Alioune Badara ndox la waaw waaw jërëjëf waaw Alioune ndox am nga xanaa lébu nga ah xanaa nga ndax lébu laa waaw ah bari naa ci soppe de te lébu yi moom ah. <laughs> <laughs> man sa baat bi ñu baat lébu lay nëru de ah waaw. Ah, kon nag alëb lébu waaw. waaw kon <laughs> naa li ñu ngi lay ziyaara. yàlla yàlla na nga fi ñaara. amiin yow lébu nga man yow lébu nga. Ah, la. ah macha allah macha allah. waaw xam nga léeg-léeg ma ni yi. waaw. Ah. yàlla ñu baax lanu waaw nga lu tax. Ah. soo leen ganesee ñu yaatal la. waaw may la foo dëkk. waaw may la soxna. dëgg la dëgg la. <laughs> moo tax ah, ñoom moom wax dëgg yàlla. kun askanalee ci ñoom da ngay jël lekk waaw. Ah, te sax samay maam nag ay lébu leen wax dëgg yàlla. ndax ñi ngi dëkk mbot ñi ngi dëkk mbot. waaw. waaw. man samay mbokk sama maam waa Ba lañ. <laughs> ah Sanc Ba. waaw wax nga dëgg wax nga dëgg. waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Aline ñu ngi waaw waaye beneen maam bi moom waalo waalo la. ah macha allah yow ñii la dar ñëpp a baax. waaw ñi la dar ñëpp baax jërëjëf. kontaan na yàlla kontaan. xanaa maa ngi digg naan nga naan daara ji daara ji daara ji sëñ Mansour la xanaa. ah daara ji waaw ah man de Tiwaawan la waaye maa ngi ci jublu Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz. ah. ma ni ma ni Tiwaawan lañ jàngee moom. waaw waaw moo jërëjëf moom ngay li ma dégg daara ji moom wax nii moom Tiwaawan rek la mën a génne ci génne <laughs> jërëjëf <laughs> waaw baax na jërëjëf Diop jërëjëf ñu ngi lay ziar yàlla yàlla defal jàmm allahuma amin allahuma amin waaw la nga continue waaw baax na jërëjëf kon 88 628 99 80 ku bëgg a dugg ci buumu jokkoo gi ah foofu nag moo ma génn te ziaruma sama bokki lébu yëpp waaw euh, sëriñ Ndakaaru ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla ndax ñoom nit leen ñoo xam ne ah réew mi dafa am cër bu mag ci ñoom bu dee alxaaji Bachir nag moom xamoon naa ko muy doonoon ku baax ku bëgg diine ku soppoon Serigne Babacar Sy yàlla na xippee aljanna waaw bu dee Ibrahima kokkitam xamoon naa ko ndeysaan yàlla na yàlla yërëm ko waaw waaw xam naa ci ñu bari wax dëgg yàlla waaw ndeysaan yàlla na yàlla dimbali leen waalo waalo itam xam nañ leen maa ngi nuyu musaa Diagne ci jekko di tailleur di waalo waalo ah di nuyu itam eh, Souleymane juus sama soppe émission bi du ko raw di waalo waalo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si allo waaw ñu ngi lay dégg waaw ah, lii laa bëggoon bokk waaw wala lii nekkoon direct en direct waaw direct la kañ yaa ngi ci téléphone bi yaa ngi ci émission Al Azkar waaw soxna si da wuyoo sa téléphone rek maa ngi lay dégg de oh dafa mel ni rëcc na dafa mel ni rëcc na 88 628 99 80 incha allahu ku dugg rek ñu jokkoo ak moom xanaa di ñaan réew mi yàlla def fi jàmm eh, yàlla taxawu kilifa yëpp waaso yëpp Sénégal rek moo am. kii lebu la kii kajoor kajoor la ah, kii waalo waalo la ah, kii njàmbur njàmbur la ah kii kii kii kii kii fu nekk rek nga pàcc te buñ dajee ñoom ñëpp bokk nday bokk baay ah yaxyaa yow foo bokk fuuta dégg nga kii alwaa waa fuuta la fuuta nag sama sëriñ fa la jànge moo tax eh, eh, eh, ñoom fa tabarakallahu muy sëriñ Babacar Si Abdoul Aziz maa ngi koy nuyu nuyu sunu way jur yëpp yi nekk foofu alxaaji Babacar Mbay di sama jur maa ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu waa Tiwaawan yëpp di leen ziyaara itam waa ndax euh, ñun sama côté papa Tiwaawan la sama côté yaay Dakar la ñu ngi nekk mbot waa di waa kër euh, euh, alxaaji Ndëri Mbay di woon muqaddamu Cheikh xaaj Malick bi mu yebaloon Gabon ñu ko daan wax yàllay Gabon ndax booba tuub gi yaatoogul noonu keneen ki tam di tafsir ma njéemé dëkk Tiwaawan waaye itam alxaaji ma dikk mbay dëkk Tiwaawan kon am nan pàcc bu yaatu foofu waa alxaaji Bakari ak euh, euh, nun koy waxee euh, sama maam bi jur sama côté yaay kon ñun laal nañ ci lébu yi laal foofu yëpp waaw mbenn baa bu mbenn ku ne xamoon na ko ak Cheikh alxaaji Malick waaw bi mu génnee àddina danu wax ni Maodo def ni ndax mës ngeen gis ku ñuy jullee mu taxaw ci sàppe si ñu ni déedéet mu ni baabu mbendaa ngi ci sàppe si kooku nag moo jur xewe mu jur alxaaji Babacar kon am nan pàcc wu yaatu ci Tiwaawan am ko tam ci lébu gi 88 628 99 80 kon ñi ngi ziyaa ñëpp baabu mbend nag ku ne xamoon ko waaw ci xam-xam ah ci may ci lépp noonu laay ziyaare waa Thiès yëpp nag aman mbay fàttewun la daawur ak ñi nga xam ni ñooy suivre al azkar ñëpp ci réew mi ak ci biti réew waa Gambie waa Mauritanie Guinée Bissau ñooñ ñëpp dañuy woote wax dëgg yàlla ku ci nekk di rafetlu ak di wax ni émission bi wéttalam la ak émission yi kër gi yëpp ñi fi ñëpp bismillah bismillah sëriñ bi 88 628 99 80 wàññi bi rek ku baax salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Oh, dafa mel ni rëcc na euh, waaw euh, xanaa rek ñu continuer kon noonu la demee mu ni euh, yeneen ci bi sallallahu alayhi ni safara dina dimbali nit déggal sarax sarax dina dimbali nit ci safara comme ndox ku ne xam na ni safara moom fu mu fekk ndox ndox fu mu fekk safara da koy fay ndox fu mu fekk safara da koy fay léegi nag sarax noonu lay def nit ci musiba comme ni ndox di def safara loolu lu ama ama am solo la kon loolu mat na bàyyi xel beneen bi ci topp itam euh, dafay ràmbu nit ëllëg nit dina sarxe di def lu baax di ko wax ba ëllëg yowmal qiyaam ñu teew sarax yi mu doon def ak mbaax gi ñëw ni yàlla ah kii day tin tin ñu ci waaw tin ñu ci ah loolu dafa am solo kon nag nañuy def lu baax di ko wax mu ni eh, dina itam tere nit maanaam xiir nit ci def mbaax waaye itam sarax dina ko tere def ñaawteef waaw xam nga nit su fekkee mi ngi sarxe même noonam gis nga même agresseur bi ni tëll di bëgg a boo ko njëkkee paasal damm ngay laafam ah gis nga ki ni tëll bëgg a def ñaawteef nga daal di yëkkati jox ko parce que bari na kuy sàcc wala muy def lenn li dafa amut dafa amut waaw su amoon rek du ko def waaw su amoon du ko def xam nga moo tax boolu dof baax léegi dañ ko bàyyi nag gis nga beedee beedee yooyu boolu dof yooyu daan am ci koñ bi Euh, mbokk yi xam-xam bu garaaw laa lay wax doon na éviter agression gis nga xale yi nga xam ne dañuy dem entraîner ba teene guddi gi ñu toog ci quartier bi amuñu lu lekk xiif bu njëkk bool yi day génn fii génn fii fee génn ñu toog lekk toog teg seen ataaya waaye léeg-léeg nga gis xale bu jug di taxawaalu guddi xiif a tax xiif moo tax waaw xiif moo tax waaw su ko defee bu dajeeg nit daal di ne ko parce que dama ci ma a gis benn xale waaw ñu daj guddi ah faf yàlla dogal man ma jëndoon dara ma xalaat ni bu ma àggee sama kër mu fanaan fa ndax xale yi duñ ko lekk ma dajeeg moom rek ubbi wàcce sama vitre guddi ah daal di koy jox laa ilaha illa may bëgg a dem mu ne ma non père taxawal te kat maguma ko sax waaye mu ne ma père taxawal ma taxaw mun ma est ce que xam nga lu ma dajoon fii ma ne ko déet waay sëñ bi lu la fi daj fii sax dafa lëndam fii ñeme nga fi mu ni ma billahi damaa xiif mun ma dama entraîné juge entraînement dem saal jóge saal xam nga jóge géej affaire yooyu ma ñëw mais après ma xiif quoi ma ni naa taxaw fii ku njëkkoon a romb rek ma ni ko waay déet waay mun ma mais nag du ma ko gaañ quoi dama koy mbécc rek jël yi ci poos yi mun ma am na tapet yoo xam koo ci mbécc mu balaak li mu yor dam waaw ndeysaan ma jox ko loolu léegi nag ma génne ci sama sa jox ko ni ko nag boo ma ne ko gis nga ñi la dar foo ci dugg laaj lekk ñu jox la ko léeg-léeg nit denc lekk fekk da ko du ñemee jox nit waaw kon loolu ci laa jàngee ni boolu dof yooyu daan génn baax na ci waxambaane yi ne ci koñ bi waaw kon mbokk yi yooyu mat na yaatal kon nag sarax léeg-léeg nga yéene génne jox nit rek mu ñaaw ñaawteef yu mu waroon a def yépp loolu am na donc kon mat na bàyyi xel euh, mu nitam euh, dinay dindi ay ñaawteef moom sarax léeg-léeg nit bëgg a def ñaawteef bu doy waar mu nitam as sadaqa sitruka min an naar euh, sarax dina nekk saatir diggante nit ak safara waaw gis nga nit nit dina dee génn àddina bokk ñu baal ma ci wax ji léeg-léeg wax a mel noonu <laughs> dina génn àddina waroon a dem safara sarax yu mu sax ak def yu mu defoon sarax bi nag mbokk mi du luy génne sa poos mais wax nit wax ju rafet sax sarax la wax nit wax ju rafet sarax la waaw nit di bëgg a def dara nga tere ko ko te ñaawteef la woon saraxe la ñaar ñu xuloo nga jubóole leen saraxe la ki tong nga njëkk ko tudd saraxe la ki romb chemise am furwaase kol ba lemu nga ñëw defar ko sarax nga ni ko defaral sa chemise bi sarax la ki fekk ab muul ci digg yoon wi mu wóor la ni bu nit ñëwee dal ci sarax la yooyu yëpp ay forme sarax la waaw ay formu sarax la seen dëkkandoo bi ci kër gi ngeen bokk kër gi luyee ko yéen ñëpp mbalit ne ci kër gi yow bul xaar Demba bul xaar Sàmba soo xëyee baleel kër gi yëpp waaw yaay nekk dof bi nag waaye dof bu jubook boroomam moo gën nit bu nit nit ku ku boroomam jéppi waaw nga gis këru locataire ñu bari dëkk ci léeg-léeg ñuy ay raxas duus ba dem ci tribunal allahu akbar léeg ñuy ay ay raxas duus ba gaañante ci ndekete bu kenn jëloon duus bi sàlloo ko di ko raxas mu ëpp doole ci kër gi yiw buy dee di dem aljanna te du ñàkk mukk waaw parce que am na barab yoo xam ni képp ku fay def njekk képp ku nekk foofu rek parce que amul ku ciy mucc waaw léeg-léeg tam mu nekk ci koñ bi loolu moom dinaa ci gërëm sama mbokk mu baax combaat combaat ñu bokk dëkk ci cité bi eh, cité bu bees bi dëkk muy Eh, ICAT fële ca Kër Massar eh, xoolal mu taw ndox mi taa ndox mi gas foofu mu dem fay ay camion ñëw necc ndox mi sotti foofu yépp allahu akbar loolu lu ko ëpp yiw dafa am ah kooku nag ni mu amee tuyaaba noonu la yow mi mi muy taw nga ubbi sa foos jël ndoxu foos bi boole ko ndoxu taw bi këppaale ko di naxasaale yooyu affaire yooyu bismillah waaw vingt 628 99 80 bismillah waaw wàññil télé bi ku baax dugg nga bismillah salaamaaleykum yaa ngi ci ligne bi xam naa kàddu gee suufee sëriñ bi yokkal sa kàddu tuuti rek ma dégg la sëñ bi walla soxna si 88 628 99 80 allo waaw bismillah ah du allo waa bismillah dugg nga dugg nga ku baax waaw waa waaw maa ngi lay dégg allo waaw maa ngi lay dégg ku baax ah waaw kay waaw kay waaw kay. noo tudd. waaw. maa ngi ni noo tudd. allo. waaw wàññil télé bi rek ku baax. wàññil nga dégloo ma sa téléphone rek wàññil télé bi nga dégloo sa téléphone. allo. waaw bismillah dugg nga. waaw kay. waaw ñu ngi leen di ziar. naxnu kazalika. waaw waaw waaw waaw. waaw dama amoon ay question rek. waaw aywa bismillah waaw dama doon nga nga seetal ma. noo tudd. Ah, Ibrahima. Ibrahima waaw. question yi lan la waaw. la lan la moom ndox la wala. waa Ibrahima ndox la ndox. ndox. waaw Ibrahima waaw dama. waa dama am ñaari doom yoo xam ni kii Amadou la tudd kii tudd Roqaya kii tudd Resta. da nga am ñaari soxna. doom waaw doom doom. ah dama bëggoon xam ne waaw Amadou ak ak ak ak ah Amadou ak Rayana. waaw. nga bëggoon xam lu doon. waaw. Amadou ndox euh, safara la Rayana ndox la. ah bon. waaw. Amadou. Euh, safara la waaw. Rayana ndox la. waaw bismillah maa ngi lay dégg. waaw Mali Mali. waaw. waaw dama bëggoon si xam lo euh, kii yooyu ngay wax nu mu sarax yi. waaw. koo xam ne da nga am ay àndandoo. sama benn doom bi dafa am ay àndandoo lan lañ koy waral di saraxel toujours. waaw léegi loolu moom foog nga dem ci kii faj loolu su ko defee da koy xool d'abord. ndax àndandoo la ba pare. parce que bari na koy wax àndandoo te fekk amu ko. su léeree ni am na ko am na loo xam ñu bari dañ ma koo wax. mani sëriñ yu bari dañ ma koo wax. mani gis nga àndandoo nu ko xoolee mu leer ne àndandoo la waaw man boog sarax bi ma ci wax souvent nit ki su ko defee du am rendez fu xam nga da gis ku naan la giw àndandoo la ngay jaabante di ko faj pendant huit mois waaw loolu jaaduwut waaw waaw su jaaree yoon nit ki dafay dafay tàqalikook moom waaw parce que sarax bi daf koy lakk ah d' accord. voilà bu boobaa day génn. Ah. waaw waaw waaw. waaw. waaw waaw baax na léegi loolu moo ci jiitu nag. consulter ko pour xam ndax loolu la ou pas. waaw waaw parce que li ñuy génne lépp. man kañ consulter naa ko sax dañ ma ko man kat dama ko wax kat ay nit ñi ñu bare ma ñoo ma ko wax. ah waaw baax na ay signes yu ko ma wax leen ko ma nekk leen ko ñu ne ma loolu la ay àndandoom la. ah daccord waaw waaw loolu moom loolu moom bu boobaa ah waaw parce que àndandoo itam bu ci nekk ak li muy def waaw est que yaa ngi may déglu waaw maa ngi lay dégg bu baax parce que ki ki mu dofloo ba mu nekk ci sën bi waaw bokkul ak ki mu topp di ko waxtuloo kase waaw ak ki nga xam ne dafa nekk ci dereetam di daw di ko indil problème waaw waaw waaw bokkul waatam ak ki nga xam ni mi ngi liggéey ak sagoom waaye lu mu yor mu yàqu waaw te yooyu yëpp ku ci ne catégorie rap day def benn kii. waaw waaw dafa mel ni ñun la ñii ay mécanicien lan nga dem mu am ca tôlier am ca vulcanisateur am am ci ah. électricien am ci nangam nangam moo tax soo tëbee rek ni jëndal huile def ci moteur bi yàq moteur waaw waaw waaw voilà moo tax ma ni la par par ci ci honnêteté foog man ma xam ban la ci ma soog la wax bii sarax moo ci moo ciy kii ah, waaw dégg allo. waaw bisimilah allo waaw laay déglu waaw Ibrahima waaw waaw waaw. waaw baax jërë ngeen jëf waay. du tee bu ñu tollee ci sarax yi di nga ci jëlee. ah waaw. ma ni du tee bu ñu tollee ci euh, wax sarax yi. di nga ci déggee lu bari incha allah. waaw waaw incha allah. waaw baax na yàlla yàlla yokk xam-xam bi. amiin ku yàlla yàlla dolli xam-xam. amiin ñu bokk ko. yàlla na yàlla doole xam-xam. amin sang bi jërëjëf yàlla na la yàlla doole xam-xam. amin sang bi jërë ngeen jëf waay. jërëjëf jërëjëf. Euh, kon vingt cent 88 628 99 80 ah allo ah d'accord léegi euh, mu mel ni li nu dese ci waxtu wi bariwul ñu ñëw rekk ci mbooloom sarax yi nga xam ni kenn ku nekk. ñi ngi koy déglu moom lay yow lay concerné gis nga léeg-léeg nga dem ci euh, sëriñ mu ni la yow da ngay jënd gàtt soo jëndee gàtt ñu rey ko togg ko ñu rey ko togg ko ñu rendi ko togg ko koo ko dégg rek tabi am safara la su àndagul ak kenn léeg-léeg nga dem ñu ni la da ngay jën jël luy meññ par exemple nga dem ki ñuy laaj âge ak poids ci diggante dugub ak affaire yooyu kooku tabi am ndox la ndox la ak suuf diggante ndox ak suuf lépp luy meññ ñoom loolu la léeg-léeg tam nga dem ci nit mu def lu nekk ñu sax ko fur wi rek affaire am yépp décanté fuur wi laa wax ni ko demal jënd banaana ak pomme ak nangam nga sarxe ko lépp dox benn la ci am na koo xam nitam ki nga xam ne euh, tabi am moom it dafa nekk ngelaw allahu akbar kooku moom affaire am sax dafa dafa dafa yéeme parce que soo seetloo yow mi déglu rek ñiy woote ñëpp lu raar nga ciy dégg ngelaw di nga dégg ndox di nga dégg safara di nga dégg suuf mais ngelaw moom soo ko déggee benn yoon balaa nga koo déggati sax mu yàgg ñoo ñu ñooy ñi nga xam ni nag les polyvalents lan en général lu nu jàpp rek ci diggante yi mu dox parce que ñoom bu boobaa nag ñoom la ñuy sax lu ñor ba noppi xam nga su fekkee par exemple euh, am na koo xam ne li nga koy sax du nekk lu focci du nekk lu focci am na koo xam ne nag li koy sax day nekk lu lu pare mooy noonu nga xam ne bu tawee ba gàncax gi jebbi ba jug ba commencé jebbi noonu ba yépp am gis nga yàlla ni muy jékki-jékkee indi ngelaw loolu ngelaw loolu fu mu romb rek mu ñor fu mu romb mu ñor gis nga nag yooyu ñor ci bees bees boobu nga xam ne moo xam dugub la dañ ko bojj bees wala muy gerte dañ ko witti bees wala muy euh, nangam loolu mooy waral ñu naan la demal jëndee ko demal jëlee ko ca datt ba loolu nag képp ku nekk ngelaw loolu moo ko mën a doxal mbiram lu gaaw a gaaw a gaaw gaaw moo tax mag ñi léeg-léeg ñu naan diw de ah diw de moom balaa mbiram a baax ah danoo taw ba sébbi waaw ba nawet bi jeex ñu soog a jublu ci mbiram loolu tam mooy waral ñaankat yi di am ndoxum taw di ko denc ndoxu taw di ko denc parce que am na ñoo xam ni noonu ñu ànde ci loola am na ñoo xam ne ndoxu taw maanaam ndox yi nga xam ne dañ leen ñii ndoxu taw ñii bu ball ñii bu nangam même am na ci ñoo xam ne pour seen xel neex bismillah 88 628 88 waaw bismillah allo bismillah waaw salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bi man waa jël ko 77 ah 77 kanti ma ni 77 waa waa da wàññi télé bi 77 615 32 23. wàññi allo. waaw 77 615 32 23. waaw waa waaw nag ko waa Rési jox dama ko fa fàtte sax bàyyi mais 77 615 32 23 sama numéro nëbbuwul jullit ñi moom ku la laaj nga tontu ko ki la wax. lu mu kii nga dimbali ko te fekk yàllaa tax loolu moom ku koy def amul looy looy nëbb wala looy làq-làqal eh, noonu daal la tëddee dégg ngeen parce que émission bi looloo ko tax a jóg pour bokkut ak waa mais njëriñ la ci képp koo xam ne dafay seetaan incha allahu mu amee ci satisfaction loolu moom la budda mais ci télé bi ngeen di woote ba ba ba mu jeex ndax dañ ko fay su ko defee après ñu soog leen ci mën jël dégg nga léegi nag yooyu noonu su fekkee li waa ji tudd léegi ku am rab ak yooyu foog tam ñu xam ki am rab ban façon la ban façon la parce que tey nit mën na feebar tëdd hôpital mais feebar yi du benn ah feebar yi du benn di te feebar lay tudd noonu nag genre rab yooyu noonu lay demee su ko defee nag foog ñu xam exact ban la ci su ko defee nag loolu mooy li a am defe naa li ñu cërale woon ci waxtu sax est-ce que jeexul yaakaar naa jeex na euh, su ko defee rekk dañuy jéggul waa bismillah kon ma jël ki nekk ci téléphone bi bismillah sëñ bi salaamaaleykum bismillah allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waa ñu ngi la koy delloo ku baax sant alhamdulilah ah alhamdulilah waaw nga seetal ma waa nga xam sa lan lii nag du sedd tabia la euh, nit ki daf ko war a xam rek mu bokk ci moom. noo tudd waaw Masseer Wade. ah. Masseer. ah Masseer. waaw. ah. ah. Masseer Wade ah. ah. moom safara la. Hmm. dégg nga. Kiné bu dee nag. Kiné. Hmm. Kiné suuf la. waaw ñaa mën na ànd waaye bu fekkee suuf ak safara moom day laaj lox ñu orientation am ci xam nga léeg-léeg léeg-léeg foofu mat na leeral léeg-léeg bu jëkk bu jëkk mag ñi danga daan ñëw ci ñoom ñu laaj la sa at li ngay pose sa âge ak sa poids gis nga loolu ñu ci daan def ci sarax li ko juróon li ëpp wàllu tabia la gis nga même ki nga xam ne mënu leen ànd am na fu ñu ciy jaar jël sa âge jël sa pois jël âge jël poids gis nga xam nga âge ak poids foo ko dégg rek mooy daanaka nit ki ba mu juddoo ba tey li mu lekk dugg na ci li mu dund dugg na ci lépp dugg na ci gis nga orientation boobu bu amee da ngay defee ni nit ki dañ ko changé indil la keneen te yooyu farate la kenn waru ko gëmm kon dama bëgg a wax rek ni ñu jéggalu bu baax nag jéggalu doomu soxna yépp ndax tam wax dëgg yàlla réew mi réewum xam-xam la te am na ñoo xam ne dañuy seetaan dinu bàyyi xel rawatina nag bokki tuubaa yi ñoom dama fa bari soppe wax dëgg yàlla noonu laa leen soppee di leen ziyaara di leen bàyyi xel itam di ñaan yàlla subhaanahu wa mu defal nu ndam defal ko réew mépp bëggunu ci dara lu may kiy déglu gindiku rek te fekk jugul sax fi mu toog ndax loolu farata la na alimu kullu cheyin afdalu min jahliha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah daa am ku ne ci ligne bi bismillah salaamaaleykum allo waaw bismillah soxna si salaamaaleykum bismillah soxna si yëkkatil baat bi rek salaamaaleykum ah dafa mel ni rëcc na de ah wala mi ci ligne bi ba tey man dégguma ko dara waaw su ko defee rek ñu bàyyi xel ni loolu yeneen ci bi moo wax ni xam-xam bu mu mën a doon ci àddina xam ko moo gën réere ko te lii nii nga xam ne nag indi nañu ko dañu bëgg rek jullit ñëpp gindiku su ko defee yu bari dootul mën a nekk yu bari dootul mën a nekk mooy kenn ku ne su xamee fi muy teg tànkam rek lépp leer ngeen am yiw ñu am yiw àddina bi yëpp am yiw bismillah bisimilah salaamaaleykum allo. allo waaw bisimilah soxna si yëkkatil baat bi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah yëkkatil baat bi. oustaz soxna si. man Bintu laa tudd. ah Bintu. waaw. Bintu loo bëgg a xam foo bokk. waaw bintu bintu laa tudd. waaw bintu suuf la bintu suuf la. waaw. waaw bintu suuf la. damaa bëggoon xam bintu lan la ak luy sarax si yéen. bintu suuf la. ak jamilatu. Ah? ak jamilatu. ak jamilatu. waaw. ah yaa ngi indi yóbbante de. jamilatu tam suuf la. xam naa moo tax sax muy copine u Binta. Hmm? ma ni jamilatu tam suuf la jamilatu suuf la waaw bintu waaw suuf la bintu tam suuf la waaw d'accord waaw bintu tam suuf la mm, eh, fooy wootee soxna bintu Ziguinchor laay woote ah Ziguinchor xam naa foofu mi ngi taw taw bu metti de ok jërëjëf waa baax na jërëjëf soxna bintu waawaa alhamdulillah dafa mel ni sax xaabaabal nan ndax rek jox leen importance ak complicité rési euh, waa rési yëpp ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal ñoom ñoo ci jàpp ba mu mel nii waaye itam euh, Yaxya moo nekkoon ci caméra bi xam naa ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, nu mu tudd Augustin ak ñoom ah, ak ak Dominique waaw waa ah man nag maay solal sama bopp de ku baax nee na ma wax ku ma solal man moom maay solal sam bopp wax dëgg yàlla ah non non man maa solal sam bopp man mi maa solal sam bopp <laughs> kon mbokk yi gis ngeen ko eh, ñi ma bëgg a jot 77 615 32 23 pour que li nga xam ni bëgg nañ tam mu gën leer ñu jéggulu ñëpp di wax yal na yàlla def jàmm jaalana allahu min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi تعالى وبركاته من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله